seetaan ci seen site bi di Touba Argentine TV ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal fàttali ne ba tey ñu ngi ci màggalu Daarul Muxti édition 2019 fii ci kër Serigne Cheikh Abdou Mbacké ibnu Serigne Cheikh Khady Mbacké équipe bi ñëw teew fii ngir dara bañ leen a rëcc ci li nga xam ne moom moo di màggal gi ñi ngi toog ak honorable député Abdoulaye di maire Kaffrine en même temps di responsable politique nekk ci biir parti socialiste bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar monsieur Wilane ñu ngi lay nuyu sa teewaay fii tey ci Darou Mouhty gis nañ la chaque année ngay ñëw di teew ci kër Serigne Cheikh Abdou Mbacké ibnu Serigne Cheikh Khady. maa ngi nuyu waa télévision Touba Argentine TV di nuyu jaarale ci yéen sama nuyoo jëm ci mbooleem jullit yi rawatina bokki taalib yi nga xam ne nii dañoo gëm Cheikhul Khadim. di xeeñtu ak a roy bëgg-bëggam di moytu ay tereem euh, ñëw nañu fii ni ñu ko baaxoo di defee di dundal loo xam ne nii ku ko dundal ku ne euh, mënees naa am njort lu rafet ci yow li ñu fiy dundal mooy akuk taalibe akuk cofeel akuk euh, doyloo boo xam ne gannaaw bokkuk deret daa dox ci diggante maam Thierno ak sëñ bu màgg bi nga xam ne nii moo waral lépp muy cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba moom ci boppam maam Thierno doonuk fàgguteefam doonuk junjëm wala boog di wax naan ci ci ci baat bu gàtt rek daanaka di listixaaram waaye ni maam Thierno àndeeg borom Touba ba àdduna sosoo ba nëgë ni ba nu noppee gis maam Thierno ak Serigne Touba ba nëgë ni kenn gisagul ku ko toppee ku koo xam ne li maam Thierno ci wàllu bokk deret bokk ak mbamba Bamba bokk ko moom toppee ko noona dañ dañuy méb rek dañuy jéem rek jéem a roy waaye kenn dabagul njàmbaar euh, euh, euh, ak ak ak dëggug maam ci digganteem ak Sëriñ Bamba kon nag bés bi nga xam ni nii Cheikh Fallou Mbacké moo ko xelaloon njabootu Daaru Moxti ak bokki murid yi moo bés boobu lañuy ñuy màggal muy bés boo xam ne nii a ah, képp koo xam ne nii mën nga koo teewe soo ko teewee nga yëg nga ñàkk yëg am nga teew fiya joo xam ne nii euh, boo doon dund ba am téeméeri at di jaamu yàlla rek mën ngaa bañ a am sax tawfeex ju tol noonu ñun nag ci néeg ndey ak néeg baay dañ ci dañ ci juddu juddu ci taalibe murit di góorgóorlu nag di jaamu yàlla ci jaami yàlla yi waaye di sakku ngërëmal suñ borom ci njabootu sëriñ Bamba gi looloo waral suñu digganteeg ba Cheikh di nga xam ne moom daf ñoo daf ñoo teralee woon euh, nangul ñu taalibe ba noppi nag dool li ñu ci nag def ñu ni ay doom yi mu jur boppam loolu waral ñi tam ñi jéem a jaayante at mu jot ñiy fexe ji teew laxasaayu politique bi ñu nekk sax dana daan tax ba léeg-léeg duñ daan ñëw ci bis bi lu ko jiitu la ñuy ñëw waxtaan ak njaboot gi jéem a jëflante ak ñoom jaayante waaye làqatu bàyyi bokki talibé yi parce que ku ñëpp bokk loo ci am lu ne da laa war a doy mhm, effectivement loolu moo tax waaye ren nag euh, ma bëgg soññ sa bopp soññ bokki talibé yëpp teew fii ndax liñ fi war a waxtaanee solo gu mu am ci fi réew mi toll solo gu mu am toll am am fii diine ji toll solo gu mu am ci fi tarixa yi toll moo tax gannaaw lii bàyyi cheikh daan fekkee cheikh Abdou di ko def moom la ñuy wéyal ba naga ni muy saa su màggalu daaru jotee ñi dajaloo waxtaanee thème boo xam ne nii mënees na cee càmbar tolluwaay réew mi ak sémb ci ay jéego yu ñu war aw pour ñoŋal nekkin àdduna waaye li gën a tax ma wax ne bés bii nii bés bu ñu itteel la mooy bàyyi cheikh laa amuk jagle ci ba ci ci borom daaru jagle gi mooy nim lim ci bokk ni ko dundee waaye itam ni mu jëfee ba ni fi jee ko ñi fi bàyyi ni ni ñu ni ni ñu doxalee ba ba nga xam ne sàkkaluñ ko bésum moom lu dul ci biir bésu borom daaru bi nga xam ne ni mooy bésu borom daaru ak borom Tuubaa kon bés boobu wuute ko du dul jaadu ci ku mel ni man wala boog sax xam ne nii am nga bëgg mbaa xam ak ràññe waaye daal ci gàttal tey am na waxtaan woo xam ne nii niguñu ba bàyyi Cheikh dem ñi door a sos lu ni ci jamonoom lañ ko doon def tey ñi war a waxtaanee tarixa facteur de division ou de cohésion dans la religion musulmane alors loolu nag moo tax ma daa ñëw saafonte ak intellectuel boroom xam-xam yi ko war a waxtaanee soññaat suñu bopp ci lépp rek. jàngat euh, en tant que politicien euh, yi ñu génn rek dem bu am solo bi nga xam ne tey si ñëpp du xalaat na ko ak borom xam-xam yi ngir ñu wax fas yéene ko waxtaanee dafa feeñ ci élection présidentielle yi ñu génn en tant que politicien sa jàngat ci loolu. man de du ma nangu en tant que homme politique jàngat ne élection donte kon nit ñi. ca lañ gëm ak ca lañ yaakaar seenu texe adduna ak àllaaxira lañ lay jàppee wala ñu bàyyee la ca du gëmal saa bopp ne ay militant wala ay taalibeewu tarixa dañ maa contre wala dañ maa dañ maa gënal dama leen a gënal keneen ku man damay jàpp rek ne sénégalais yëpp rawatina ñi bokk ci diini l'islam yëpp surtout ñi nga xam ne dañoo ràññeeku ci kër yi ñuy wax tarixa ñu ngi mel ni ay kurus ay peri kurus la sëñ Fall waxoon rek per boo ci fab téye ko téye bu dëgër te wér boo ko yëkkatee lu mu lu ne fekk la kon ñu koy wax nag ñoo xam la la la tax ñu wax ko ndax wolof dana naan ki kenuy jooy moo xam la muy jooy ndax xool kasan na te wakkeesu ko ndax baaram jotu ko waaye ku bëgg lépp te doo may sa bopp lépp boo ñàkkee lenn li waroo waroo sukk kenn ma ne président Macky Sall nekk na fi président nekk ko benn yoon ñaari yoon bu fekkee nit ñi dañoo bëgg a dugal ci boppam ne ay murit wala murit dañ ko contre bu ko gëmee def erreur historique bu ko gëmul nag te def li mu wax ne moom lay def xool 42 pour cent yi ko wotalu lu tax wotaluñ ko dana mat homme d'état turam dana des ci histoire te diggante fii muy bàyyi politique ak nguur gi mën na am mu joyanti lu tax yëf yi soppeeku nakam noonu ci biir tarixa yi waaye naka noonu it ci yeneen dëkk ak dëkk dëkkaan ci biir réew mi ba rawatina Casamance nga xam ne lam fa def ak lam fa dugal alors lam fa liggéey bu fa gañewul tam bu mu sikk ña fa dëkk ndax kilifa moom jëlale jéggale tey jëriñe dong moo ko waral waaye man daal li ma xam ba xam ko mooy nëw nañu fii bëgg a soñ suñ bopp ci un peuple un but une nation ensuite bëgg soñ suñu bopp ne ñu ngi fàttali suñu bopp di fàttali suñu mbokk yi ñu jamonoonteel ak ñi ñëw ëllëg ne yàlla kenn la rasulullah yi kenn la waaye balaa rasulullah yi di kenn alxuraan daa den daa nekk benn yenn wax waxe yàlla la ak ci benn kàllaama la ko yàlla tëggee wàcc ko arab ngir gi nga xam ne ni moom moo tax ñu tàbbi ci lislaam it ngir malik it benn la kon nag bennoo googu jullit doon bennoo te muy loo xam ne kenn na tablu ne Serigne Bamba am na lu mu ci liggéey ak lu mu ci fàggu lu rëy rëy rëy bu ñu bu bu bu bu bu ñu ko dara yàqal sañu maa wax ne dañuy wujje waaye su ma ko sañoon wax damay wax ne mu ngi mel ne nga dugg ci génn kër fekk fa yenti soxna yu am borom kër bokk ko nga naan doomi kii ma gën a doomi kale yow nag yaa koy wax teg ko ci mbiri meen ak yu mel noonu waaye borom kër ga moom ku bëgg a teqaleeg njabootam du ko neex noonu laa ko gisee man te am na ci lu leer ne Serigne Abdoulaye waxoon na ko ne ñaar ñu bokk ndey ak baay euh, nga bëgg a tam kii dëmm bàyyi ka ca des loolu loolu loolu laa ci gis moo tax maa ngi fàttali sama bopp di fàttali sama sama mbokki taalibe yëpp li nga xam ne ni mooy warteef gi mooy sellal sa taalibe sa sellal sa njaayante bàyyi xel sa bopp ci ki nga xam ne nii bokku leen ko ngeen jokk wala bokk leen wérdu ngeen a jël ndaxte boo boo ñëwee ci njabootu sëñ bamba gi waxuma la doomi sëñ bamba yi ñi ñu fi bàyyi waaye cheikh sëñ bamba yi ni ñu fi bàyyi wala bokki sëñ bamba yi ñi ñu fi bay mu ngi bëgg yaatu yaatuwaay boo xam ne nii euh, euh, faw mu am koo xam ne day taxaw ñenn ñi am ñoo xam ne dañuy dañ leen di taxawee fenn fi lii rek laa ko gisee